mesdames et messieurs, monsieur le coordinateur camarade Cheikh Ndiaye, madame la présidente, l'honorable député Amin Ndiaye, chers collègues présidents de conseil, coordinateur de, de la COSER des différentes communes du département, mesdames et messieurs les journalistes, nous voilà réunis en assemblée générale extraordinaire ce dimanche janvier à la salle polyvalente en présence de 1500 délégués ici des communes de Boulel, Diamagadio, Diokoul Melmouk, Nibi, Kaffrine, Kei, Kachot, Mendon Salam et Nganda. Sous la présidence de notre coordinateur départemental, le camarade Cheikh Ndiaye, en présence de la présidente de la commission féminine, l'honorable député Amin Ndiaye, la conseillère départementale de Kaffrine a adopté la présente résolution considérant la lettre du président du parti, son excellence le président Macky Sall, lue par le camarade Abdoulatif Koulibaly devant les principaux responsables et militants du parti en réunion le 13 janvier à la salle Pluvante de Kaffrine. Considérant l'appel du président du à l'unité et au rassemblement de toutes les forces vives du parti et de la mouvance présidentielle afin de réunir toutes les conditions d'une victoire nette et sans bavure au premier tour de l'élection présidentielle en février 2019. Ah Considérant les réalisations du gouvernement dans le à travers les bourses familiales, la couverture maladie universelle, le programme d'urgence de développement communautaire, le programme 10 ans de modernisation des axes et territoires frontaliers, la construction de l'équipement du Centre régional de formation des personnels de l'éducation, le bloc scientifique et technique au profit des élèves de Carfin, la compagnie de gendarmerie, le service du contrôle régional des finances, le Centre départemental d'assistance et de formation pour la femme, l'évolution du statut de l'hôpital régional du niveau 2 au niveau 1, le début le lancement prochain de la construction des stades régionales d'un coût de plus de 3 milliards de francs CFA, etc. Considérant les efforts entamés dans le financement des poches des jeunes et des femmes à travers l'ANPES et le FONSIM notamment, considérant les efforts du gouvernement pour le bon déroulement de la campagne agricole à travers le, un meilleur encadrement des paysans et la suspension de la taxe de, à l'exportation. Considérant les engagements solennels du Premier ministre Mohamed conformément à celui du président de la République lors de sa tournée économique dans la région de Kaffrine le octobre 2016 de trouver une solution structurelle définitive à la question récurrente des inondations à Kaffrine. Considérant l'absence inexplicable de toute la région de Kaffrine aux instances nationales du parti, malgré nos résultats satisfaisants, fruit de notre engagement des responsables et des militants à la base. Considérant le rôle Macky Sall. La COGER départementale de Kaffrine prend bonne note de la lettre directive du président du parti, s'engage à ménager aucun effort pour sa mise en œuvre correcte dans tous les départements de Kaffrine et exhorte tous les responsables des militants à faire preuve de dépassement et d'ouverture pour être la hauteur des du président de la République. La COGER félicite le chef de l'État, son premier ministre et l'ensemble de son gouvernement La COGER encourage le gouvernement dans l'attention soutenue qu'il accorde au monde rural à travers la gestion solidaire de la campagne agricole et la sauvegarde permanente des intérêts du monde paysan. La COGER souhaite le début des travaux dans les meilleurs délais du bitumage de la route Kaffrine Nganda Diamagadio pour enfin mettre un terme à une doléance cinquantenaire de toutes les populations de la région de Kaffrine et une meilleure prise en charge de la question des inondations récurrentes à Kaffrine par à Pékin et à Saint-Louis. La COGER sollicite un renforcement plus accru des instruments de financement des projets des jeunes et des femmes dans la région à travers une politique d'industrialisation porteuse de croissance et développement humain à l'indice régional. La COGER souhaite un meilleur rééquilibrage des incendies partis au profit de notre région qui ne mérite point le traitement, l'absence par exemple de toute la région au

locaux comme nationaux, à une plus grande solidarité, à une plus grande fraternité, même dans la diversité, afin de donner à l'image du président Macky Sall au peuple une posture qui rassure dans la volonté de la puissance des ambitions présentes au futur. La COGER s'engage à réélire le président Macky Sall dès le premier tour l'initiative Macky 2012, fait à Je vous remercie. Merci. asalaamaaleykum ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci Kaffrine nekk ay jeunes yoo xam ne dañoo engagé wu ngir liggéey suñu gox ñu ñu xam que ne mënuñ ko def segam taxawuñ la président son excellence monsieur Macky Sall tey looloo waraloon tey ñu dajaloo fii tey. Euh, ñu def benn euh, déclaration boo xam ne nii gannaaw ba ñu liiree li nga xam ne moom mooy résolution du président son excellence monsieur Macky Sall ñu taxaw fii tey ngir leeral leen li waral loolu parce que nag ñun dañoo bëgg suñu gox dañoo bëgg defar suñu gox te xam nañ ne mënuñoo defar suñu gox mënuñoo taxaw suñu bokk bopp te président Sall àndu ci moo tax ñun ñi nga xam ne ñun ñooy COJER national fii ci département Kaffrine yàlla def man député Amy Ndiaye ñii bi ma jiitee jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci département Kaffrine bi yëpp ñu taxaw tey di leeral liggéey bi nga xam ne am na solo à ah, ma qualité de député li nga xam ne président de la république def na ko muy ñu joxe ci rek benn exemple bu ndaw ndax lépp mënuñ koo lim ci ay minutes yu néew ñuy jox benn nat rek li nga xam ne mooy PTIP le programme la euh, le le programme d'investissement triennal euh, public bi nga xam ne président de la république natt na ko muy ci diirub ñetti at loolu yëpp mi ngi ëmb li nga xam ne mooy le le plan Sénégal émergent moo ngi ëmb li nga xam ne moom mooy euh, li nga xam ne mooy fukki fukki ODD ak juróom-ñaar. loolu nga xam ne moom mooy stratégie yi nga xam ne moom lañ war teg ba nga xam ne réew mi yëpp dinañ gis seen bopp ci li nga xam ne moom la liggéey bi président di def mu doon tamit gis bopp go xam ne day doon développement boo xam ne dafay sax dàkk te dootul arrière li nga xam ne moom mooy économie Sénégal day avancé ba faw ba lu bëree bëree bëri bëri dootuñ ko soxla feneen mais ñun ñoo ko yoral suñu bopp loolu nag bañ amee président boo xam ne dafa ñëw engagé wu jël programme am teg ko experts yi ñëw xool li nga xam ne moom la waroon natt ko mu méngoo ak li nga xam ne moom la experts yi gis loolu moo waral tey ñun ñi nga xam ne bénéficié wu bénéficié wu nañ ci li nga xam ne moom mooy capital humain bi nga xam ne tabax na ko ci ndawu Sénégal ñu bénéficié wu ci moo tax tey ñu taxaw am stratégie boo xam ne dañoo engagé wu mais engagé wu wuñ ci xeex engagé wu ci xuloo mais dañoo engagé wu ci yaatal massifier parti bi woo ñi nga xam ne nekkuñ woon sax di politique woo ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci yeneen parti yi nga xam ne doxuñ bañ gisal ko seen bopp dikk tey fas du yéene woon tàllal seen loxo ànd ak ñun liggéey loolu lañ engagé woon tey moo tax ñoo ngi tàllal loxo ñëpp di yaatal góor jigéen mag ak ndaw góor jigéen xale yëpp yoo xam ne nii seen gox ñor na leen seen dëkk ñor na leen seen seen ñor na leen tey ño engagé wu fas yéene taxaw xeex euh, ànd ak président de la république ba nga xam ne euh, euh, février 2019 président de la république day gañe ngañaay loo xam ne kenn du ko laam-laam lee kenn du ko am kenn du ci am lenn loo xam ne moom ngay xool wala nga di ko lañ bët mais day gagné à 80 pour cent incha allah sangage s'engage ñun ñoo ñun ñëpp àndandoo nañ ci loolu jàppante nañ ci ci de tout nag jàppante nañ de ñun ñëpp tàllal nañ suñ loxo ñëpp ñoo ngi taxaw di wax ñëpp bu ci kenn arrière bu ci kenn dellu ginnaaw ndax réew gone moom moo koy tabax réew gone moom moo koy liggéey te taxaw nañ pour ànd ak président Macky Sall incha allah ba nga xam lépp lu mu bëgg ci réew mi dana ko am merci beaucoup. honorable député da ngeen wax Cojer Kaffrine man maa ngi fii ak yéen je lii du Cojer yëpp yëpp yëpp. vous êtes vous vivez la division la leen tasee léegi xeex am na ba ngeen na cante loolu nu ngeen koy lijjante balaa ngeen di ñor di ñeneen feneen du ngeen lijjante moom seen projet waaw li nga wax lu am solo la parce que xulaw a kaana mu muraan nit dangay wax dëgg te yàlla rek tax li nga wax nii lu dëgg la waaye ñun ñi nga xam ne ñun dañoo président Macky Sall dañoo tabax ci ci capit may leen ma. capital humain bi nga xam ne moom la def ci ci ci ci ci blogam yooyu nga xam ne blog 1 blog 2 blog 3 blog 4. ci li nga xam ne moom moo tënk le Sénégal émergent ñun capital humain boobu daf ñu cee tabaxaale ndax xam nañ ne xuloo ak xeex jariñul dara xam nañ ne divergence jariñul dara moo tax tey ñu woote jël suñu alal xool ñi nga xam ne ñooy personne ressource ñi nga xam ne président Macky Sall ñor na leen ku ci mel ne tey Ablaye Seydou saw mu jàppale ñu ñu booleeg li ñu am tey ñu woote ci juróom-ñeenti communes yi nga xam ne moom moo ëmb la département Kaffrine ñu dajaloo tey di woote bennoo di woote jàppalante ndax ci li nga wax noonu ci laa lay dëggalal parce que ci biir mbooloo mi am na ku fa def déclaration politique mu ngi tudd Kissa Cissokho mu déclaré ne moom fa mu nekkoon ci Bilal Cissé bàyyi na ko ndax xam na ne Bilal Cissé liggéeyut ankay mu ñëw fekk suñu ci suñu liggéey te ci biir loolu am na ñu ñëw ne ñu am na ku leen fay pour ñu yàq ko mais loolu yëpp amul solo li am solo mooy ñun am na foo xam ne juum nañ fa parce que man à ma qualité de député du ma nekk ci loo xam ne am na litige dañoo waroon a am suñu autorisation ba ñu def ko. est-ce que tamit nooyoo leen bopp Moussa mi ngi nii bi mooy coordonnateur leen mu ngi si yéen est-ce la wax mooy li ma la wax noonu ñun naxuñ suñu bopp moom mooy nax boppam parce que ñun dañoo gis ki nga xam ne moom la Sénégal soxla gis ki nga xam ne li Kaffrine manqué woon moom mu koy defar gis ki nga xam ne moo ngis liggéey réew mi ku ne gis na président Macky Sall liggéey bi muy liggéey mu am solo lool ci réew mi moo tax ñun matir googu ñu matir moo tax duñ ko topp ci loolu mu ñuy woo mais ñun dañuy woote bu buñ demee ba ëllëg àdduna yee leen ñu xam ne ñoom li ñu nekk du dëgg du yoon danañ ñëw fekk si ñu ñu ànd liggéeyal suñu réew ànd liggéeyal Sénégal pour que le Sénégal soit émergent ah, incha parce que ñun président Macky Sall lu mu laaj rek ñu def ko mais nag dañ koy def ci stratégie boo xam ne dafay poser parce que moom loolu la woote nitu jàmm la nit koo xam ne macha allah léppam da koy teg ci li nga xam ne moom mooy li yoon laaj ci moom la ñuy roy ci ay tànkam la ñuy dox ci noonu lañ koy defee incha allah duñu mës a arrière duñu mës a daw dañuy def rek ba nga xam ne li nga xam ne moom mooy objectif u Sénégal muy un Sénégal émergent mu basé wu ci objectif boo xam ne développement durable lay doon mu yokkute gu sax ba faaw law ba faaw ba doo te dootul arrière ci lool lañ taxaw incha allah te jaral nañu lu ne. waaw di leen jaajëfal euh, maa ngi tudd Cheikh Ndiaye coordonnateur projet départemental Kaffrine maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi masawu waa département bi jóge ñoom ñëpp tey mille cent jeunes ñoo fi daje ci salle bi. bëggoon a waxtaan nan la ñuy def ba taxawal équipe bu dynamique boo xam ne dina dem waxtaan ak population bi divulguer réalisation président wax leen ci opportunité d'emploi yi nga xam ne président moo ngi koy waajal surtout dafa ne décrété année bi muy année sociale tey loolu moo ñu daje woon mais il se trouve que ne si suñu procédure euh, demande d'autorisation bi dafa am défaillance nangu nañ ko njuumte la ci ñun la nangu nañ ko te dootuñu dalate donc di la wax ne loolu moo tax peut-être que manifestation bi préfet euh, ñëw at arrêté bi et ñu jégalu ñu ñëw yi ñëpp xam leen ne bëggee wuñ ko noonu waaye nag di profité si occasion bi di remercier le responsable Abdoulaye Seydou saw man jeune président bu àndoon ak la ñi taxaw fii ñu ci bëri Amy Ndiaye l'honorable député jeunes yi njëkk ànd président ci la bokk tey suñu demee ba ñun ñëpp ñu jàpp ne dañ ko war a jàppale c'est parce que moom moo ngi jàppale président Macky Sall moo jël alalam di ko ci def xaarul kenn xaarul Macky Sall ci dara tey sunu activité bi bu ñu la waxoon ñaata million lañ ci def da ngay naan déedéet. ëpp na bëri na su ma la ko limalee du ma la du ma fi joge te yemul foofu noonu c'est pas la première fois kon li ñuy wax président mooy su nekkee ne bëgg na am ku ko ku mu jiital fii ci département Kaffrine pour mu assurer ko sa réélection Abdoulaye Seydou Sow la bu rombee Abdoulaye Seydou Sow gisuma keneen parce que ñoom ñëpp seen bopp lañ fi nekkal nekkaluñ fi parti bi jaxase lañ fi nekkal di jaxase jeunes yi ñuy di xeex. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais s'ils persistent, on va entrer dans le détails, on va les dénoncer tous. Oui, bon. bu ko defaatee buñ ko danañ dugg ci détails yi danañ leen dénoncer wax ñi nga xam ne ay responsable lañ nekk fi te di bañ Abdoulaye Seydou Sow déroule activité yu ma def yow mënuloo parti bi li mu lay jox yaa ngi koy def sa poos keneen di def nga ne du dem ndax lan foo ko teg bu ñu bëggee dimbale président nañ bàyyi Abdoulaye Seydou Sow mu liggéey nañ bàyyi Abdoulaye Seydou Sow mu liggéey loolu lañ bëgg a wax danañ ko crier danañ ko wax président suñu paree danañ bind danañ ko yóbbul président. Ah, man man je suis un jeune responsable. très bien et mature aussi balaa maa wax lenn ci tur yooyu noonu danaa concerté ak ñi ma àndal ba pare beneen yoon. danañ leen indi réponse bu soobee yàlla